recherche scientifique fii ci Afrique ana lan lañ ci war a def loolee mooy temu bés bi ñu jagleel ndaw yi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram ñu naar leen nag décorer waaye tamit sargal ci ñi nga xamante ne ñoo ci gën a yàgg loolu tax sax ba ñu ne mbir mi dinañ ci dem ba jeex en tant que ndaw lu ñu mën a def moom mooy topp suñu professeur yu nekk fii ñoo xam ne wane nañ seen xarañte si réew mi ak si bitim réew jéem a ñoom tànk yu ñuy dox ñu jëm see topp ba mën a relever défi bi amicale bi ëmb ndaw yi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllum wér gi yaram fas yéene nañoo dem ba jeex te taxaw nañu temb ngir def rekk li leen war ci wàllum wér gu yaram nu ñuy def rek ba jëmale ko kanam waaye tamit ñi ci gën a yàgg ñoo ngi leen di diggal ñu woy ci yoon bi bile.